Mais Aziz Social, il est arrivé dans le combat. Mais Aziz Social, Galop Aziz Social, il est là. Aziz, Aziz Social. Aziz Social, Aziz Social, il est là. Oui, Aziz Social. Non, Aziz Social day jaaxaan Aziz Social wax naa ko ñaax rek nee naa ko na wax jooju bip. Aziz Social. chérie Aïcha waaw déedéet ay sa xale yi Aziz social elle est là Aziz social boo gën laal barki Sëriñ social ah Aziz <laughs> ah, ah, social ah Aziz social déedéet waay social ah Aziz social il est la combat

ah bis ah Aziz Aziz Aziz nag yaa ngi formu de. waaw man nag këram laa ne. mais Aziz social non looy laaj Aziz looy laaj Aziz. mais mais mais maa ngi lay nuyu Abdou mais lan moo tax Abdou Events si saa bu wootee macha allah. laaj ko nang rek. organisation bi day jaar. laaj ko de. sant yàlla xam naa bàyyi moom gëree rek fekk na loolu yëpp ñooy defar te yàgg na ci affaire bi am na ci expérience xam naa loolu tax yàlla di ko si yàlla quoi macha allah day am day am seen tafaati combat bu neex incha allah combat bu neex waaye combat ngi ñëw hmm. waaw day doole ne ci biir yàlla mooy moom rek ci gën Ndiaga bu jàll waay père. l'entrée de Aziz social. ay sa Touba waay. Ndiaga yaa ngi jàmm. gars yi yow nu mu demee nii gars yi. sama patron bi ngay filmé suba ba Moussa Fatou la yow kese de. ah mbay la. waaw. mbay rek leen sax numb bi mbay la mbar la ko def leen. waaw mbay la waaw. ah loolu la waaw. est-ce que jaaruma man de sax loolu mooy. mbay mbay mbay. mais l'entrée de Aziz social. daal bi 1 million 2 millions 500. lii Sa Touba. maa ngi ñëw ci Sa Touba waay. alors maa ngi dem ak Gambie. Gambie yëpp na bàyyil sa baay dugub. xajal sa baay dugub. bàyyil sa baay dugub. bàyyil sa baay dugub. mais saa Touba waay. Sadou xaaral xaaral bye bye một bay bay <laughs> bay bay bay. Ada sana kali ni, ada ada. Rồi. eh may ñu bañ pare ay may ñu waa yow. ah ma daal lay indi. waaw jël ma léegi jël ma waaw jël ma. Sidi Faye. waaw. Demba kaa ma jox la Demba. kaa ma jox la. kaa ma jox la bu ngay dàll ah. ci day jaay ay dàll. daa ma dina la indi dàll.